dal leen nag jàmm mbokk internet yi Viviane Chidid raxasu na ba set wecc ci mbirum Didji ak moomule nga xamante ne moo nekkoon manager donte sax mbokk tàmbali woon na dox ci seen diggante ñoom ñaar ginnaaw bi nga xamante ne Didji ak dafa jëloon kenn ci ay doomam yu jigéen daal di koy ndayale Viviane moom manager Viviane Chidid boobule jamono jii ni mu ngi ci guddi gu bët setagul yoon teg na ko loxo ànd ak loolu ne ko ràpp ca kasab Rebeuss ba ndax dañ koo jàpp ci mbirum njuuj njaaj trafic ak falsification de visa waaye li jaaxal ñëpp ci mbir moomule mooy nekkoon ab patronam di wuyoo ci turu Viviane Chidid daf cee raxasu ba set wecc ci jamono joo xamante ne ñëpp jàppoon nañ ne Viviane Chidid ak kile di Dijak li ñu séq weesu na sax wàllum liggéey Dijak Diouf ak Viviane Chidid nekkoon ay complice déggoo loolu ci seen wàllu liggéey bu kii di liggéey liggéey bu am solo ci suuf ngir fësal ki nga xamante ne mooy Viviane moom Viviane itam ci kaw seen bi di liggéey liggéey bu am solo ba ñëpp bëgg ko ànd ak loolu moom Viviane yàgg na doon defal ànd ak loolu sax ci nga xamante ne digganteem ak Bouba Ndour tasoon na moom di jag moomu moo fi nekkoon ab bouclier maanaam moo nekkoon kiiraayam ci diggante moom ak képp koo xamante ne ngi doon wax wax ju safaanoo jëmale ci Viviane Moomile ndax da ko doon défendre daanaka di jag moom de dafa nekkoon ab loxo ndeyjooru Bouba Ndour borom këru Viviane ba woon daanaka sax xam gu mu xamoon ñaar ñooñulee moo taxoon ba dëgg-dëgg problème su amee ci seen diggante ñoom ñaar moom Moomile di di jàkk dana ci doon dox ay tànk yu am solo saay bu Viviane jàqee moom la daan seet yi ngir mu daal di koy dimbali defal ko te bu ñu ñëwee itam ci wàllu liggéeyu musique ci jamono joo xamante ne ñëpp jàppoon nañ ne Viviane dina daanu ci suuf maanaam dina dem ba suulu kenn dootu ko déggate kooku lee di jag juuf moom moo daal di taxaw ci mbir mi temb liggéey liggéey bu am solo ba kile di Viviane newaat fës ci ab seen bi delluwaat na woon fa woon mel na mu mel wala sax nu ko raw loolu yëpp di firnde la ñoom ñaar seen diggante àndoon nekk ab sayu dëgër lool kenn mënu leen taqale dem nañ sax ba kile di di jag juuf dal di tuddee Viviane Chidid doomam bu jigéen say bu waree génn mbaa mu am ab événement moom di jag juuf daal moo daan nekk taxaw ci lépp lu nga xamante ne war na mën a taxaw ngir ka événement mi mën a jàll ci jàmm lépp la ca gën a tuuti ba la ca gën a rëy moom di jag juuf moo ci daan taxaw seen ànd ñoom ñaar ëpp na fukki at ba méngoog li olof njaay di wax naan ànd bu yàgg daal dëgg la waaye li jot a xew ci guddi yi ne tax na ñëpp waaru ci boobu lay ànd doxalinu Viviane ci mbir moom la moo jaaxal ñëpp waaye ana lu ko waral mel na ni di jaaj Juuf da doon liggéey ci ginnaaw ndaw sile teg ci ne daf ko wor waaw waaw kóolite gu mat sëkk moom la Viviane Chidid amoon ci di jaaj Juuf waaye bii le doxalin bu bees bu mu yaakaarul woon mukk ci waajilee tax na ba mu am mbetteel lool teg ci sax ne dafay porter plainte déglul li Viviane wax ci mbir mi waaye ànd ak loolu yëpp mbir mi mel na ni jeexagul de ndax affaire bi dëgg-dëgg la nekk ca biir biir daanaka feeñagul te sax nag moom di jaaj Juuf lii ko dal nii dugguleet ndax jotoon nañ ko taqal ci mbir yu ni mel ca atum 2017 doyen di tegoon ko ci ab loxo ngir lu nu mel loolu waraloon ñu mettroon ko sous contrôle judiciaire ginnaaw ga ca lañ ko may ab autorisation ngir saay suy génn réew mi mu daal di demander ñu may ko lu nu mel mu mel ni boobule yoon rëccoon na ca waaye bi yoon de daanaka kenn mënul wax ne dina ca génn daanaka dañ ko jàpp loxo ci poos moom di jag Diouf moom lee nag li ñu koy toppee jamono ji mooy association de malfaiteurs maanaam bokk gi ñu bokk ci ab kuréel guy def ñaawteef trafic de migrants maanaam jàllale gu muy jàllale ay doomu adama ci anam boo xamante ne nii jaarul yoon faux et usage de faux en écriture privée maanaam defar ak jëfandikoo ay kayit yu jaarul yoon waaw kay yow ñu jàpp la benn yoon nga wax ba ñu génnee la ca ñu ne déeta waay nga nekkat ca ba ñu ne la nii gaaw a de lii de mooy nag tere mu tere tere mu bàyyi mu gis